ñun jigéenu benn bokk yaakaar dañoo am lu ñu naqari am lu ñu met parce que bu ñu nekkee di liggéey président Macky Sall fii ci Kër Massar 2009 ba léegi ñuy liggéey muy gagné ay élection yaakaar naan liggéey bu rafet moo ko waral kon tey du ñu liggéey ba yegg si fii bu Benoît Samb jël koo xamante ne base mi ngi nekk Ziguinchor mu war a dem xëccu ji foofu ay commune am ñëw di ko xëccu fii ñun loolu duñu ko nangu. man nag li ma mën a wax mooy. bonu nous man mom lay wax mom su dafa am ko nako nous dem mais pas jël Aminata di ñu ko bëmëx pour tey mu mën a dem jëli ji postam bi nga xamante ne moom la pertoon foofu ñun xam nañ li ñuy carte yëpp ñoom li ñuy carte lépp xam nañ ko ñoom dañoo bëgg après ñu def seen coalition ñoom moom ak euh, euh, ku jigéen moom ak jigéenam boobu ñu ñu def seen coalition pour créer seen benn parti pour xeex après jàkkaarloog président loolu lañ bëgg seen seen seen seen seen clan yi ñuy def yëpp ñun comprendre nañ lépp ñun dafa am nag lu ñu mit ci loo xam ne dañ ko fustiger te booba léegi Kër Massar Nord ñoo ngi am lu ñuy maslaa muy monsieur Benoît dafi ñëw bëgg ñëw forcer li nga xam ne duñ ko nangu lim ñuy forcer nag mooy deux siégeants yoo xam ne moom ak ASOM dañoo teg seen benn lobbying muy lobbying boo xam ne yaakaar naa ne ñun nekkatuñ si parti bi ay gan nekkatuñ ci parti bi ay gone boo xoolee depuis deux 2012 élection présidentielle fan la ASOM nekkoon. Ils ont gagné élection présidentielle depuis le référendum 2015 falla ASOM nekon Ils gagné oui à gagné Massar ASOM nekon banyi ñëw gagné ak local ils ASOM nekon 2019 la ñëw Kër Massar 2019 Kermassar. mais dafa faut lo mom ak Benoît dañ parce que Benoît mënut a digérer tey poste ministériel bi nga xam ne da koo ñàkk xam nga lu tax parce que tey madame euh, madame euh, Aminata Assome Diatta bi nga xam ne jox nañ ko poste ministériel bi ñu indi ko à Kër Massar mu koy forcer pour téye ko Kër Massar lu tax mu koy téye Kër Massar pour mën a récupérer poste ministériel bi nga xam ne si base am Ziguinchor te loolu dafa yomb dafa yomb ñun nag waa Kër Massar duñ ko nangu. ñu bëgg nag président Macky mu dox ci ay jéego nu mu gën a gaawee dagg ko nu mu gën a gaawee sinon élection yi dina am problème boo xamante ni du fu mu koy waxee te su boobaa lépp dina këpp waat si moom naka dagg nag ci nu mu gën a gaawee dagg ko ci nu mu gën a teey nu mu gën a gën a gaaw moo ñu gënal parce que Assome Diatta fii du baasam na dem xëccu ji fa mu bokk bokkul Kër Massar Ziguinchor la bokk na dem xëccu ji Casamance ba mu bokk waa Samb nag place la bëgg liggéey boppam lay liggéeyal moo tax muy muñu ba ma asom jaata ñun suñu électoral mën nañ ko gere suñu bopp 2009 ba léegi ñu ngi fi nekk di liggéey liggéey bu rafet coordonnateur Pape a Demba di fi liggéey liggéey bu rafet di financer femmes yi di def looloog loolu ci ay moyenu boppam ay poche boppam kon nag ñun duñu nangu tey nit jóge fële ñëw di fi jiite ñu koy ñuy jël élection comité ak électoral di ko teg ci kawam ñun duñ ko nangu te coordonnateur mën nañoo mën nañoo gérer. ñoo ngi si ginnaaw. sunu coordinateur Pape Ibrahima Demba tey ak ëllëg te fii si Kër masaar noor moom moo gën a xam ne tey Pape Demba mënu ko fii gagné kon bu mu ñu forcé ki nga xam ne moom mooy Aminata asom Diatta bu ñu ko forcé ñun nag liñ leen a mën a wax rek mooy lu tuut tabariwul gis nga fii Kër Massar noor bi Pape Ibrahima Demba moo ko moom Kër masaar fii Pape Ibrahima Demba mooy boroom mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg moom la Kër Massar wóolu yaa ngi dégg mooy suñu candidat te fii ku fi taseel da lay daaneel ñoo ngi alerté monsieur le président Macky Sall mu jël ay responsabilité am ndax du ñu nangu kenn kenn kenn kenn ñuy koy forcé képp ku ñu forcé ñun dinañ ko tegg teg fule ñun nag ñun Kër Massar dañoo négocié tul ndax dañoo sonn ndax Pape ma Demba il a fait tout lu ne def na ko ci parti bi lu ne def na ko ci parti bi ànd ak la Benno Bokk Yaakaar ànd ak suñu jigéen yi ñu bëgg ñoo tey du ñu imposer koo xam ne mënuñ ko nangu loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg.